comme ni mako ko waxee toujours ci ça se discute la nek muy ben information nak bo xamanteni meun na japp ni que exclusivité la suñ leen nee exclusivité nak ginnaw nak bi ngeen déggee ni que fan yépp ñi ngi jëm ci ay élection législative anticipée ci élection législative anticipée yoy nak li nga xamanteni dal moy APR ak ki nga xamanteni moy PDS ak yenen parti ak euh, li nga xamanteni moy parti réew mi bu Idrissa Seck ñom dal dañu daal di boole li nga xamanteni moy sen seen def ben intercoalition bu ñu tuddé takku walu ci bir intercoalition coalition bobu nak yakarna ni ki ñu tête de liste du ken ku ki nga xamanteni moy son excellence le président de la république euh, bi fi nekkoon di Macky Sall ginnaw lol nak Macky Sall lañ defoon tête de liste ñu bari di main lamé ndax Macky Sall dina wàccaat ci langue politique bi muy exclusivité bo xamanteni dañ leen koy indil Macky Sall day dellusiwaat ci langue politique bi ginnaw bu mu gisé ni ka dal Sénégal mi ngi dégradé bu baaxa baax lepp lo xamanteni ni ligéyon nako ci démocratie ñing koy

préféré dal ay privilégier li nga xamante moy Sénégal qu'à l'international kon Macky Sall officiellement dina rendre li nga xamante moy à terme jëmale ko dal ci fonction yi nga xamante ni dénkoon nañ ko ko ci boppu 4B muy ce 9 octobre fofu ci Paris Macky Sall dal dina delloowaat li nga xamante dal moy mooy 4P ginnaw nak mi ngi doon liggéeyal à l'international tay nak c'est un vrai patriote ginnaw bu mu bàyyee Sénégal foog ne tay ñiko ko dañuy tegu ci tankam gëna yëkëti Sénégal mais boobu tay gis nañu Sénégal mi ngi gëna a ginnaw pour la première fois lu sommet de la francophonie président du Sénégal décoraté pour la première fois depuis Senghor ba tey ji ndaxte kii di Diomaye préféré yónni fa li nga représentant Banyadem, donc Macky Sall gis na li nga aussi xew Sénégal Madame ci dund bu cher aussi ci li nga xamante ni bëmb lañ ko modise ginnaaw dégradation état du Sénégal jëmale ko daal ci li nga xamante B a3 Wati B1 ci Lodal Makessal, daal Macky décision d'Al, pour Dagan Batu askan le 17 novembre 2024 foofu ci assemblée nationale pour que ñu fexe suqaliwaat Sénégal bi jëleewaat ko ci guute yi nga xamante ni jamono ji mi ngi ci biir ay Sénégal donc pour Bangal gaal gi Makessal, Macky dina démissionner le 9 octobre ci li nga xamante ni présidence en tant qu'envoyé spécial des 4P pour Wati ci langue politique bi avons wax ak askan bi ñu majorité